الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان فهذا هي وسائل التنسير في العالم الإسلامي mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi xam ngeen ne tey fii nu toll ci àdduna bi mooy lislaam dañ koy sot sotoo tey li gën a doy waar ci àdduna mooy nekk jullit li gën a dangereux ci àdduna mooy nekk jullit weer wii nu génn defoon nañ ay fan ci àll bi boori Casamance waaye bu ngeen fa demee da ngeen di fekk nasaraan yi di saax saaxee jullit yi ci côté bu nekk ñuy tubbiloo jullit yi di leen def ay yéeféer jóge nañ fi dem Casamance. wàcc Ziguinchor ànd ak ay borom xam-xam ñu dem benn dëkk bu tudd Goudomp ñoom ñu jóge fa dem Sédhiou jaar ci benn dex bu tudd Bambali jóge Sédhiou dem Ziguinchor waaye ci biir dëkk yeeg gox goxaan yeeg àll bi projet yoo gis ay nasaraan ñoo ko financé pour jullit ñi génn ci seen lislaam te yoon yooyu ñuy utiliser yépp mooy yooyu ñuy utiliser al wasail al musaida al ula wal aqwa hiya jumtukaay yooyu ñuy ngànnaayoo ñoom pour tey tubbiloo jullit yi génn leen ci lislaam bu ci njëkk mooy al ixtilaal mooy na ngeen occuper terrain bi fu ngeen dem ci gox yi ci dëkk yi na ngeen fexe porte dëkk bi ku ne tëll na fa seen ab église wala ab jàngukaay wala mbir bu bokk ci mbirum nasaraan te loolu ku jàng Dakar sax dina fekk loolu ci biir dëkk boo dem booy dugg buntu dëkk bi da ngay fekk nasaraan yi lanu moom moo fa nekk mooy na ngeen occuper terrain bi fu fi nit duggee na leen seen na leen gis na gis ngeen di yëngatu na gis la muy teg bët yéen na ngeen ko moom moo tax foo dugg da ngay gis seeni nataal di gis seeni tabax di gis ñoom lu nu jëmmal ñaareel bi mooy adda am na ngeen leen financé na ngeen dajale alal ju bari di leen nax indil leen ay financement comme xam ngeen ne jullit yi tey dañoo tiit alal da leen a nax alal da leen a wor kon na ngeen dajale rek yéen ay financement yu ngeen leen di dig yenn yi di sotti yenn yi duñu sotti ñetteel mooy awamilul faqr comme xam ngeen ne jullit ñi dañoo ñàkk te ku ñàkk moom ndeysaan wallahi alazim ci bisu àjjuma la nu nekk ci waxtu yu sell wallahi alazim jox nañ ñu information séeju benn kër goo xam ne ndaw sa fa nekk màgget la dafa ñàkk amul dara feebar julit yëpp daw ko parce que dañ ko doon tam dëmm ñu ne ndaw si dëmm la yëpp daw ko nasaraan yi ñëw ci kër gi faj ko ba mu wér dafa raatal ko kër gi mu nekk nasaraan ku ko dégg da nga koy sikk mais est-ce que kooku lañu war a sikk est-ce que moom lañu war a sikk wala ñun suñu bopp ñun jullit yi suñu bopp lañu war a sikk ñan ñoo ko tamoon ay dëmm jullit yi ñan ñoo ko dawoon jullit yi ñan ñoo ko seetaanoon ban koo faj jullit yi ñan ñoo ko faj nasaraan yi ñan ñoo ko jàppale nasaraan yi mu ne dëgg laa doon wër dëgg gaa ngi nii nit ñëpp ñëw wax mu ne dëgg gaa ngi nii fii la dëgg gi nekk ñii ñoo doon jàppale xam ngeen ne ñàkk tey li muy def ci àddina ñàkk li muy toroxal ay nit ñàkk li muy génne ay nit tey ci lislaam kenn xamul nu mu toll mbokk jullit yi ñoom ñàkk jullit yi la ñuy utiliser kër gu ñu ñëw fekk dañoo ñàkk ñu wàcce fa ceeb dëwlin suukar ba nga nooy ay weer ak ñoom ñu laaj la ñaata njaboot nga am nga ni am naa fukki doom ak juróom ñu ne la jox ñu kenn wala ñaar ñu dimbali la nga jox leen kenn kooku buñ ko yóbbee ba mu màgg lu muy nekk nasaraan ñeenteel li tax ci moyen yoom yu ñuy utiliser mooy xillatul waay mooy néewu conscience jullit yi jullit yi amuñu benn conscience tey loolu moom partout dans le monde jullit ñi amuñu conscience islamique looloo tax tey li leen dal di leen dal ba fii ci biir Ndakaaru da ngay gis ay jullit yu ñuy détourné di leen dugal ci ay yàlla yàlla ay kenn xamul ñii duñu julli ñii ay fecckat lañ ñii dañuy baram seen bopp yi ñii di karas karas tubéy seen tubéy yi kenn xamul tey jullit lu tax parce que ñàkk conscience xillatul waay yi benn boroom xam-xam da doon bëgg a jàngal doomam dëgg mu ne ko ibnayya inna min arrijali la bahima fi surati arrajuli samii almubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi waaye wa ida usiba bi diinihi lam yashcuri doom am na ci nit ñi ñoo xam ne am na ci jullit ñi ñoo xam ne ñoo bàyyi ma yi ñoo yem ndax bàyyi ma day lekk ñoom ñuy lekk bàyyi ma day naan ñuy naan bàyyi may sëy ñuy sëy bàyyi ma am soxna ñu am soxna bàyyi ma am doom ñu am doom bàyyi ma am fu muy fanaan ñu am fu ñuy fanaan ñu loolu rek lañ yem ak bàyyi ma jeex na inna min arrijaali la bahima te ñooñu fii surati rajuli samii al mubsiri soo leen nee jàkk dafa ne ay intellectuel a ngi nii ay nit a ngi nii ay fekk yoo rabu àll moo leen gën góor guy sëy ak góor ñaar ñooñu lu ñu tanante est-ce que ñooñu am nañ nit ay nit lañ jigéen ak jigéen juy sëy buñ demee ba góor ak góor di sëy est-ce que ñooñu ay nit lañ pourtant ñun nit lañ leen tegoon ndax waa jaa ngi lay romb ak 4-4 yor clé di dugg ci bio nga naan ko chef fekk xaja ko gën xaj mu ne ñooñu dañoo muus aar nañ seen bopp aar nañ seeni kër aar nañ seen alal ba dara du ko mun a laal waaye seen diine nag buñ koy rendi ñoom ñooy indi buum ne yeewal tànk yi xam ngeen ne l'islam tey li ko tardel mooy jullit yi partout dans le monde fu ñuy xeex jullit yi ay jullit ñooy jiitu daas paaka bi partout partout laa wax fu ñuy rendi l'islam jullit yi ñooy jàpp tànk yi ñi ñooy jàpp loxo yi ñi ñooy ñàdd noonu yi doog a ñëw rendi qillatul waay beneen bi mooy wal jahlu bi diini wal xayaa bokk na ci tey li tax ñuy tubbiloo jullit di leen def ay nasaraan di leen def ay yahud di leen def ay góor jigéen di leen def ay franc-maçon mooy al jahlu bi diin dañoo réere diine mbokk yi l'islam jullit yi dañ koo réere benn misaal rek laay joxe ngeen xam jullit yi dañoo réere l'islam ajjuma jumaa yëpp dañuy fees wala du fees kenn ku nekk ñu na tontu ci xelam vendredi bu nekk jumaa yi day fees wala tabaski jumaa yi dañuy fees korite jumaa yi dañuy fees julli fajar nag du farata julli tisbaar nag julli takusaan julli timis julli gee yéen ñiy julli si vendredi fajar fan ngeen di nekk ay na antum fan ngeen nekk ki gàddu si ñaadaam julli si vendredi lu tax du yeewu fajar julli ji mooy amul dafa réere diine jàpp nañ ne farata daal mooy ajjuma rek damaa war a dem juma fajar moom damaa war a nelaw ba midi mooy ajjahlu bi diin danoo réere diine loolu moo tax tubaab yi di nu nax nekk suñu ginnaaw duñu exploité yenn saa yi sax ñu wax ñu ci diine loo xam ne daf ñuy convaincre ba dunu mën a dund suñu diine tey boo taxawoon ci Sénégal nga yor rajo wala nga ut fi benn parti politique bu naan parti islam sharia allahu akbar doo am nit lu tax parce que dañ naan la kii ngeen di wooteel yéen ñëpp lay rey après da leen di rey parce que pourquoi ñu ne sharia lay taxawal te sharia day rey nit ñi lan moo tax problème mu Égypte bi am dañu ne Mursi bu taxawee sharia lay taxawal te sharia day reyaate yaa yi coup d'état commencé rey nit ñi jàpp di tëj jullit yi seen bopp ñoo def loolu Amérique ñëwu fa France ñëwu fa Angleterre ñëwu fa ñan ñoo fa ñan ñoo fa nekk ay jullit yu ne sharia du fi taxaw ay jullit ñu wax loolu tey wallahi fii ñu nekk billahi wallahi wa taala suñu bëggoon samp fi sharia ay jullit ñooy jóg ne du fi am abadan loolu moo ñuy wan ne dañoo réere diine aljahlu bi diin waaye yemuñ ci réere diine rek hatta alxaya dund gi dañ koo réere xamuñu adduna bi ni muy évoluer ni muy demee xamuñu lan moo téye adduna bi xamuñu yan yoon la ko gaa yi jaaral dund gi xamuñ ci dara ñun daal lu ñu xam mooy lekk naan solu dem liggéey wàcc ñëwaat tëdd nelaw xamuñu adduna bi yan loxo ñoo ko téye xamuñu monde bi fu muy fanaan xamuñu fu muy yeewoo xamuñu yan stratégie la nekk ci seen loxo ñan lépp la ñu réeree amuñu dara ixwatal iman bokk na ci mooy gaa yi utiliser ba tey mooy al ixtilaatu lxaq bil baatil ne ngeen fexe ngeen jël caaxaan jaxase ko ak dëgg bu kenn xàmme dëgg na jullit yépp nekk ay làmbatukat foofu lañ tollu tey jullit yépp dañuy làmbatu koo wax mu ne la inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin ñun daal bu ñu sonal lii ngay wax ñun xamuñu ko suñuy ndey ak suñuy baay lii la ñu nekkoon ñun ci lii la ñuy dee ñun ñëpp loolu la ñuy wax ñun ñëpp loolu la ñuy wax boo demee ci olof yi loolu la ñuy wax boo ñëw ci tukulóori ñu ne la ko ɗum min tawnoo taaniraaɓe ina ngoni ko heen min maayata foo dem loolu la ñuy wax boo ñëwee ci ñooñu loolu lañ lay wax lii la mag ñi nekkoon ci lii la ñuy nekk waaw loolu mooy musiba bu nu gën a rëy bu nu gën a rëy mooy al ixtilaat al xaq bil baatil jël dëgg jaxase koog neen xoolal tey lislaam bi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam wallahi al azim bu dekki waatoon tey du xàmmee lislaam su yonent bi dekki waatoon du xàmmee lislaam ndax lii ñuy def lépp bàyyi fi woon dara xoolal diine bi ñaata façon laa ilaha illallah moo am tey ci Sénégal kër gu nekk da ngaa yor sa façon laa ilaha illallah kër gu nekk kër gu nekk laa wax hëy la hëy la ñooñu da ngay xam ñan la a laa ilaha ñooñu nga xam ñan la laa ilaha illallah nga xam ñooñu ñan la kër gu nekk sa façon nga ko yor inna lillahi wa inna ilayhi au lieu laa ilaha illallah bi yàlla indi woon Muhammad wàcce ko déedéet pour nga xam ne man bokkuma ak yow yow bokkoog man man façon bii laa koy defee soo soo tëddee sa kër sax ngay nelaw nga dégg rajo bi da ngay naan ah ñooñu de waa kër ñoom diw tey ñoo ay guddi àjjuma gi kër diw la ñooñu ñoom diw la kon yow da ngaa war a tëdd nelaw gis nga fuñ jëm xoolal yooyu rek ba ci yére yi sax yére yi sax dañ ñoo tàqale ba ci mbax na yi am na ñoo xam ne façon mbax na da ngay xam ne ñii waa kër diw la ñu yow bokkoo ci yow sa façon mbax na bee ba ci kurus yi sax kurus yi kurus yi sax ay façon la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ixwatal iman bokk na ci moyen yu nasaraan yi di utiliser pour christianiser dëkk bi mooy arrihlat wal mughamarat lada al munassirin fa taqumu muassasat at-tansir ala ta'limihim al-lughat wa ittiba'i al-'adat wal adyan ñun dañu tëdd fi Dakar borom xam-xam yi ñoo moom loolu ñaata ustaaz ñaata borom xam-xam ñooy fayeeku ay salaire yu ñuy fay naan leen woote leen ci lislaam fekk waxu defuñu dara tus lañu deful te ñu ngi lekk riba parce que dañ leen di fay pour ñu liggéeyal diine mais Dakar rek leen tëdd kenn ci ñoom du dem fenn bu ngeen duggoon ci àll bi xam da ngay dugg ci jàkka joo xam ne. ña fa nekk xamuñu lu ñuy jullee xoolal ku jël saaru alquran def ko qunuut def ko saaru alquran qunuut ilimaan boo xam ne taxaw jàng allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt allahu akbar ruko dafa ne loolu ci alquran nga bokk ndax réer gu ñu de te moom moo fa tane ah moo fa tane ñeneen ñi am na ci koo xam ne bu taxawee di julli salaatu subhi bu ñu li xaamee pare danaan bi niyati salaati subhi rakaatayni yowmul jumaati bi izni muhammad salallahu alayhi wa sallam su ñëwee tisbaar mu ne arba rakaat yowmul jumaa abubakrin siddiq su ñëwee takusaan arba rakaat yowmul jumaati omar ibnul kattaabu omar ibnul kattaabu bu ñëwee takusaan arba rakaat usmaan ibnu affaanu bu ñëwee timis mu ne ali ni abi taalibu ñetti rakka waxtu ket maanaam julli juróom da koo boole yonent bi ak saxaaba yi ñeent ku nekk yaa moom benn luñ parce que loolu lañ jàng loolu lañ yaakaar ne moom mooy dëgg mbokk jullit yi ay tukki tey dañuy tëdd fii ñun di nelaw fii wala nekk fii di jamante ay paaka di suujante tamante dëmm di takk fiirante ay américain jóge Amérique ay français jóge France ay anglais ay allemand ay ay ay bàyyi foofu moo gën a neex téeméeri yoon foofu gën a rafet moo gën a lix ndox yooyu ñoo gën a set lekk yooyu ñoo gën a baax ñoo gën a neex lal yooyu ñoo gën a nooy oto yooyu ñoo gën a rafet tali yooyu ñoo gën a baax ñooñu bàyyi ko foofu ñëw fii ci Sénégal volontaire dugg ci àll bi ñu naan leen lan ay missionnaire léegi sax dañ leen tuddee corps de la paix nga gis tubaab bu ñëw ci dëkk gën a dégg waa dëkk ba seen làkk ci ay fan mu jàng làkk bi ba mokkal ko jël benn tur ci waa dëkk bi bu dee jigéen la mu tudd Fatima sàngam bu dee góor la mu tudd Abdallah nangam nekk ci dëkk bi di liggéey looloo tax ngeen gis am na benn film bu ñuy dawal ci télé bi surtout 24 décembre wala 31 décembre filmu Isa la filmu Isa filmu Jésus mais dañ koo traduire ci olof boo xam ne ñun waa Dakar olof boobu mënuñu ko ndax ni mu setee fii waa Dakar bu ñuy wax papa lu ñuy wax papa àll bi bu ñuy wax papa lu ñuy wax du ñu wax papa dañ naan saa baay baay booy film bi noonu lañ ko traduire olof boo xamante ne amul njaxas ñooñu fan lañ jëlee loolu parce que dañuy yónni ay nit ay missionnaire ci àll bi ñu jàng dëkk bi jàng aadaay waa dëkk bi xam lépp bind téere dem suñuy dem ñeneen balaa ñuy dem ñeneen ñëw ñoom ñu ñibbi te waa Dakar tey koo jëloon fii ne ko kaa ma yóbbu la fee juróomi fan mu indi la ay problème xoolal ñoom dañuy volontaire te amuñu fay ci yàlla ñun ñi nga xam ne am nañu fay ci yàlla subhanahu wa taala ndax yonent bi nee na bépp tànk bu poussière ci yoonu yàlla tànk boobu du dugg safara tànk bu pënd ci yoonu yàlla tànk bu du dugg safara xoolal fay bi ni mu réer waaye ñun xamuñu loolu mbokk julit yi da ngay fekk ñuy tukki ci àll bi lu àll sori sori lu mu lëndëm lëndëm nga fekk fa benn nasaraan ci biir nit ñi ñuul ñi wax kii lu mu fi def ñu ne la kii moo ñuy jàppale kii lu moo ñuy dimbali moo ñuy faj moo ñuy wan nangam wala wala wala fekk kooku loolu li ko fa indi mooy def leen ay nasaraan waaye yemu ci loolu tabaxal leen ay mu assasaat ay école ay poste de santé ay ay ay ay tabaxal leen ko pour lan pour jàngal seeni doom ñoom seeni aada pour ñoom ñu wuuteeg seeni doom bu seeni doom màggee nekk ay nasaraan wala ñu dugal ay aada yoo xam ne ci seen bopp yi munoo fexe ba ñu weddi ko loolu ngay def tey da ngay dem ci benn dëkk nga fekk papa ji jullit la yaay ji nasaraan la doom yi dañoo séddalikoo ñi ay nasaraan lañ ñi ay jullit lañ nga dem ci armeel yi fekk ñuy suulandoo nasaraan yi ak jullit yi kii nasaraan la suul nañ ko kii jullit la suul nañ ñoo bokk benn armeel bokk kër yi da ngay ñëw ñu ne la fii daal amul problème ñun ñëpp daal benn lañ kii jullit la sama papa ngi ni jullit la sama maama ngi ni nasaraan la loolu dafa am ci lislaam loolu amul ci diine islam lislaam lépp dañ ko war a séparé parce que du ñu benn ak ñoom lakum diinukum waliya diin di leen jàngal loolu di leen jàngal aada yi ak seen diine yi waaye lan moo waral loolu lépp lu tax mu mun a am yan bunt la ñuy poroxndiku ba loolu mun a am mooy tasaahulu baadul hukaam wa ru'asaa'ul qabaa'il wa suyuuxiha wa istiqbaalihim al munassirin da ngay dem ci dëkk yi sunu gouvernement yi ñoo njëkk a nasax parce que ñoom xaalis rek lañ leen di jox ñu daal di exécuté moo tax gis ngeen Barack Obama bi mu fi ñëwee lan la leen indil comme cadeau yéen waa Sénégal mooy na ngeen fexe ngeen nekk ay góor jigéen su ngeen ko defee xaalis baa ngi nii ñu jox leen xaalis waaw loolu rek moo doon voyage am fii pour ngeen nekk ay góor jigéen amul leneen bu ngeen ko defee ñu financé leen su ngeen ko deful fii ngeen di dee kenn du leen financé lu mel noonu la ñuy jël yóbbu ci àll bi suñ demee ci chef de village yi indil leen benn cadeau bu ndaw cadeau bu ndaw cadeau benn portable boo xam ne amul ci dëkk ba wala benn parasol boo xam ne wala benn mbaar boo xam ne wala benn seetu boo xam ne dëkk ci biir kër gi su ko defee rek chef de village bi naan kii moom sama nit la ci man la ñëw dëkk bi ku ko fi waa ji nag léegi am na ku ko aar parce que ci chef de village bi la la bu dee ci këru diine yi sax sëriñ bi moo koy dalal mu ñëw ne day tuub fekk tuubul day fen billahi wallahi wa taalahi bi ñuy ñibbisi ci oto bi ñi ma àndaloon am na ñu nekk ci jumaa ji mën nañ maa seede benn xale bu jigéen moo ñu woo France ne benn tubaab moo ñëw Sénégal takk ma yóbbu ma bi ma yóbbee dañoo am ay problème léegi abandonné ma bàyyi na ma ci kër gi di ñu wax problème yoo xam ne lu ko waral nee na waa ji dafa ne woon dafay tuub tuubul du dëgg day naan sàngara di tux di def lu bon waaw naka fii suñu jigéen ñii rek suñu jigéen ñii rek ñoom ci seen bopp du ñu ay jullit beneen waa ñoo ñu ne dañ koy tuubal xanaa ma la ñuy tuubal tubaab bi ñu tuubal ku jigéen ki ba pare ku jigéen ki ci boppam du jullit ñu ne yee benn waay ñëw diggante jeudi vendredi samedi dimanche ñëbbu ko ci jàkka ji ñu ne tuub na waxal ashadu an laa mu ne ashadu an laa ilaaha illallaah ñu ne ñit ñi daal di reene moom mu mu jóg dem dem France lundi ñu ne kooku tuub na kooku lu mu tuub fu mu tuubee lan la jàng ci diine lu mu xam ñu may ko seen doom mu yóbbu ko bu demee nekk ci lu ko neex am na ay tukkikat yu nekk fii mun nañu xam ne loolu ma wax dëgg la yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان بقنا تي لتخ نصراني أم دولة تي دكي دي جنة جلني تي الإسلام mooy li leen ruasaul qabail yi di teeru ñi nga xam ne ñooy chef de village yi wala suyuuxihaa ñooy kilifay dëkk ba ñooy sëriña dëkk ya ñoo leen di accueillir recevoir leen indi leen ci biir dëkk bi indi leen ci penc mi dajale ñépp ne leen kii sunu gan la ci dëkk bi la nekk na ngeen ko nangam na ngeen ko nangam su ko defee nag waa ji léegi am na sécurité am na moyen nu mu liggéeyee parce que borom dëkk bi kat présenté na ko ñëpp allahu akbar waa ji am temps nag mën a tubbiloo xale yu góor yi fekk mag ñi duñu yëg mën a nax jigéen ñi fekk mag ñi duñu yëg dugal seen diine ci seeni xol di dajale xale yu ndaw yi ci yenn dëkk yi di leen may tàngal bu mu am kaani we xat bu ñu na bu ñu màccee mu ne leen boobu Muhammad la ma jox leen bu neex bi ñu ne waaw jox leen bi mooy ban ñu ne Isa léegi fale xale yi fan la ñu bëgg kaay leen may tàngal ñu ne bëgguñu Muhammad may ñu Isa waaw bëgguñu Muhammad may ñu Isa lu tax Muhammad neexul lan leen di wax xale yooyu bu ñu màggee ci loolu fan lañ jëm fuñ jëm te looloo am te ci sunu biir dëkk yi mbokk yi ndax ay mbir yu ndaw ndawaan ndax ay alal ndax ndax hôpital bu ñu tabax ñoom ñoo ñu tabax hôpital bii hôpital bi ñu tabax après hôpital bi lan lay liggéey saydaliya pharmacie ñooñu may boîte à pharmacie bi garab yi ñoo ko jëlee Europe indil nu ko mi ngi nii kon xam ngeen dañuy bëgg nannu maljaun lil marid ñooñu defar salle bi ñu ci entrée aysan daarul ibda al aytam wal ajz war aramil kër goo xam ne dañ naan ku ñàkk baay ñëwal ñun ñoo la yoral sa dund ku ñàkk jëkkër ñëwal ñun ñoo la yoroo sa dund màgget mu mënatul dara ñëwal ñun ñoo la yoroo sa dund ngay fekk foofu ay kër yu mel noonu ñu tabax daarun lil ibdal ay taam wal ajz wal aramil ndeysaan nga gis jigéen ji yeenu saaku sunguf meew foo ko jële ah ci sunu kii balaa demoon ñooñu ñoo ñu koy indil ñooñu kay ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla bëril gis nga di leen ñaanal ab jullit koo xam ne yonent bi danoon boo dajeeg moom na nga ko tànc ba mu jaar ci tappaat yi léegi yow waxatuma loolu yaa ngi ko yaatal ba sa biir kër di ko ñaanal di ko ñaanal soo demee nga fekk fa kitaabu tansir mu tabbaa bi anawinayni muxtalifa nga fekk fa téere yi nag ñu commencé leen jàngal nag jël téere yi di ko móol ci seeni làng ñi ay lan lañ soose ñu móolal leen ñi ay pël lañ ñu móolal leen ñi ay joolaa lañ ñu móolal leen làkk yi su ko defee ñu mën koo dégg ci seen làkk malja'u majalla majalla kanisiya usbu'iya benn journal boo xam ne semaine lay génn journal bi lan lay wax seen diine semaine bu nekk ñu moolal leen benn journal su ko defee ñu tasaare ko ci biir dëkk bi semaine ba semaine journal bi daal di génn ñëpp di ko lire yemuñu foofu de dañ leen di utal rajo rajo boo xamante ne ci la ñuy déglu seen émission yi bu ñu leen di évangé ah fii yéen dimanche bu nekk sax loolu moom Dakar am na fi dimanche bu nekk rajo yi fi nekk dimanche gu nekk nasaraan yi am nañ fa émission. te loolu dafa bokk ci pacte da nga koy signé yow directeur bi ubbi rajo bi fal force nasaraan yi dimanche am nañ ci heure yu ñuy wax loolu dañ koy exiger gis nga parce que pour il faut fal force ñu wax gis nga te yéen yéen ay jullit ngeen. mais dañ leen di exiger loolu loolu moo lay wan ne ñun danoo toog nii rek waaye ñooñu gouverner ñooñu moom mbokk yi maahad li tansir école boo xam ne lan lay jàngale école yaa ngi fi ci biir réew mi gis ngeen xale ba bëggoon muuru parcelle dañ ko ne abadan fii kenn du fi muuru kenn du fi muuru soo bëggee jàng ñëw jàng waaye bopp neen ñun suñuy école kenn du fi muuru loolu siiw na fi waaye fan la mujj mujjul fenn parce que ñoom ñoo moom seen yëf te ñun ñoo leen di fekki ñun ñooy xaaraan yi ñun jéemu ñu defal lu jëmmal loolu wala lu ëpp loolu waaye déedéet ñun kenn ku nekk njëriñ loo fekke loolu la ñu yaree rawdatul atfal ay jardin d'enfants ay xale yu ndaw 3 ans ba 6 ans ñu leen di jàngal musiba naaru laay leen jàngal al kufru ak kéeféer lañ leen di jàngal ay xale yu ndaw jardin d'enfants yi ñu naan amul fay ñëw leen am na meew am na dute am na gute am na am na am na jullit yëpp jël seeni doom yóbbu foofu boo waxee ñu ne la ñoo ñoo dàq jàngale même sax da ngay boo feebaree ñu ne la demal kër sa ñoo fi dàq faj demal foofu loolu la ñu gëm loo ixwatal iman bokk na ci moyens yi ba tey nusxatu tawsi majania min al injil soo demee fekk seen bible bi ñu traduire ko multiplier ko ku leen ziyaara ku nekk bal sax du ñeem ci ku leen ziyaara waaye dañuy xëy di dugg ci kër yi waaw téere bu am barke baa ngi ni kër gu nekk ñu bàyyi fa benn kër gu nekk ngeen defa ne moyens yooyu ñuy utiliser seen doole yooyu ñuy def sacrifice jóge seeni dëkk bàyyi yu neex yooyu yépp waxuma ñu ñëw dëkk Dakar waaye ñu dem ba ci àll bi ci tàngaay bi ci lëndëm gi foo xam ne dañuy dem àll boo xam ne amul courant amul ndox amul tali nga fekk fa ab tubaab bu dëkk ci néegu ñax yi di lal basang di lal mbaaj di fi tëdd bu guddee mu takk sànke bu guddee mu taal sondel taal ordinateur portable am ah di ma di liggéey balaa muy jeex mu dem chargé waat ko ci ville bi ñëwaat ah ñun ñu tëdd fii da ngeen defe ne li mooy lislaam bu ajuma jotee rek ñun ñëpp ñu gàddu suñu sijaada ñëw allahu akbar asalaamaaleykum dem añ ba suur naan suñu ndox mu sedd bu lislaam weesu na loolu sahabatul kiram ñoom ñoo dëkkoon amakinul muqaddasa barab yu sell yooyu ñoo fa dëkkoon ndoxum zam-zam moo gën a sell ci ndox yi dañ ko faa bàyyi woon maqaama ibrahim moo gën a baax ci barab yi ñu bàyyi ko fa hajaratul aswad kaabatullah safa ak marwa masjidul rasul xoola place yi ni mu sellee sahaaba yi dañ ko faa bàyyi woon boo ñëwee ba Mauritanie ñu ne la am na sahaaba yu fi dee lan moo doon seen diine lan moo doon seen pas-pas mooy balligu anni walaw aaya jottali leen ma lu benn aaya ñun ñaata aaya lan mokkal yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة mbokk yi am na sunu benn mbokk jullit bu sonn bu feebar dëkk ak ñun ñu xam ko lool ñun ñoo ko yabal sax na ñëw fii ci jumaa ji pour mbokk jullit yi dimbali ko suñu jullee ba pare insha allah ku ko mën a bàyyee dara ngir yàlla nga yónnee ko fii ci biir jumaa ji ñu dimbali ko ko fajee ko ko parce que dafa feebar dem na ba mënatul dox ay beeka lay yor ci loo xamante ne docteur yi nee nañ weeru yàlla bu ko fajee day dox kon bu ñu seetaan xale boobu bu ñu seetaan mbokk moomu ay tànkam di yàqu nañ ko jàppale allahuma rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina azaba annar rabbana la tusi qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله